Lirou Diane la ñu décoré noonu décoration bi xaritam doomu ndeyam jën production jëy production moo koy jox noonu ndeysaan yaram daw na Djibi Ndiaye bool production tey Djiby Ndiaye décoré la ci kanamu àdduna yëpp. waay buur sama xol dafa sedd ndax lii Djiby def dafa rëy vraiment ma war a bëree dimanche mu woo ma ne dafa may décor dafa may ñaax dafa may yokk jom su dimanche ñu xam lépp dëgg la. liiru lii am na dinaa daan incha allah rabi ñëw indil ko drapeau bi décor ndax Djiby Ndiaye sama papa Djiby Ndiaye la tudd moom muy tudd Djiby Ndiaye kon sama papa la li mu def ci man dafa foor dafa rëy. maa ngi koy ñaanal ñu dégg ci te kaw a kaw a kaw taw. te leeru lii lu muy def ci yow ci combat bi lu muy def. jom fulla fayda. wuli am na problème. weesu na am problème. man maa la wax lii yàlla na yàlla suturaal. maa lu ci dóor nit mu lu ne mu ndaam combat bee ko laaj maa ngi sama jarbaat Abdou Sène Abdou Sène fukki yoo juróom ñaar sama jarbaat la sama xarit la sëñ Samba Ndour kenn moom. da nga ne làmb am lu ci laxasu suuf. ay promoteur waaw non non làmb ji di moo bari loolu après lépp dina leer. am na ay promoteur yu faral ci suuf. man mi non waaw am naa suma xarit suma doomu ndey d'accord. am say avocat bopp. waaw maître Ndiak Ba kooku kenn waxatu ko kooku. am say maara bopp. waaw maître Ndiak Ba. am mbër yu la ngem. sëñ Samba Ndour sëñ Modou Seye borom sama sëriñ la sama xarit la sëñ Gassama sëñ Modou fay sëñ Cissé mu sëñ Babacar ñoom ñëpp sooy sëñ la. wala mënu ci génn. déedéet du yomb de. liiru est-ce la lan la. lii da ngay mënu ma ko fay maa ngi ko sant ndax combat bi gis naa ni mu ko yanoo. wuli nee na Modou Lo ko indi moom. waaw Modou Lo moo ko indi amul problème dara garaawul foog liiru maa ngi gërëm per Ba bu parcelle ba Papa Sow ku baax la ku bëgg sport sport lay dund liiru daal di nga duma wuli incha allah rabbi dimanche yàggul leneen fi la bàyyi ba may ñu wér at fekk at tal maa ngi gërëm monsieur le maire Aliou Sall Sall ngaari budu gellam toon at nee na taal at su kii bi nu mu tudd Thierno Lo Thierno loo maa ngi koy gërëm sa xarit ma xarit ba ma defee accident bi moo ma jëloon en charge fañ ma looy wax looy wax wulli sa baat bu mujj sama jour ba laat maa ngi koy gërëm di ko sant laat Qatar maa ngi gërëm diaspora bi ñëpp ku ma léwu rek damaa jur looy wax wulli sa du mujj koy wax daal la taxaw dëggal boobu combat ju neexal da ngeen xeex ba kenn wadd di ngeen xeex ci kaw ba kenn wadd amul song amul dafa xeex dóorante ba kenn wadd xeex ba kenn daanu wul kenn daanu